naataal ñaar ak juróom-ñett ab njaboot bu ñuy dox ci yoonu yàlla ku góor ki dafa war a bëgg jabaram ku jigéen ki dafa war a fonk jëkkëram loolu la yàlla santaani dañoo war a dimbalante bokk yar xale yi ci gëm yàlla njabootu chrétien dañoo war a ànd di julli di ñaan di liggéeyal yàlla